ni seetaan ci www.gfm.sn wala youtube slash tfm dal leen jàmm ci seen émission à suivre tey nag ki nga xam ni moom la ñuy dalal am ak moom waxtaan buy yaatu nu daatan du ko daal di yebbi bagages yi kooku nag mooy ko xamante ni ni gan la moom la ñuy wooyee The Lion King soo leen ma déggul moo di le roi lion boo leen ma déggul ba tey dama naan jamono yi képp kuy takk ngemb ci làmb ji moom mooy sa buur gaynde kooku mooy le roi des arènes ñii ne nan mooy doomu Double Less di magu Sathies ñu koy duppee Triple Less ca mbër yi nga xam ñi ñoo nekk ci làmb ji mooy seen gaynde ci moo leen sut lees kooku moo di Balla Gaye le roi des arènes di xootal euh, dama bëggoon comme àdduna bi yëpp ñu ngi nuy seetaan nga nuyoog euh, internautes yi ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi nuy seetaan ci biir émission bi ñu door ñëw nag ci fond waxtaan bi waa ñu ngi sant yàlla baax di jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa suma sëriñ sëriñ ñaan yàlla sax ci ñaan yàlla jàmm am Sénégal ci àdduna bi yëpp di nuyu sama fans ak sama supporters donc. Euh, balaa ñuy dugg ci waxtaan bi tamit dafa am question boo xam ne il faut que ñu poser la ko parce que gis nañ ni ko depuis le 22 avril ci la passation de service bi am ci sa diggante ki nekkoon roi des arènes nga xam ni titre roi des arènes bi ñëw na ci sa loxo ñëw ci biir kër gi donc ñu bëggoon xam le roi naka la toogee ci biir pale bi depuis boobu mu tombeek saison bi tëj tamit mu mel ni yaa ngi noppale wala yaa ngi fête daal. waaw lu passé sa xëy na le moom yàlla def na ko actuellement def na mais je pense que ne tamit lépp lu mën a xew rek yàlla la suñu borom moo koy tegee et moo koy teggee aussi dañuy ñaan yàlla mu teg ko ñu def ci lu rafet jëfee ko lu rafet ñu ànd seeg suñuy mbokk ànd seeg suñuy asaf ak suñu am di jàmm rawatina géejaay bi ma dëkk aussi euh, képp ku ba bëgg Balla Gaye numéro 2 donc activités yi bëri na ñu ngi war a dem Casamance ñu ngi war a dem seet suñuy mbokk la paix en Casamance aussi xam na ñaax seen i neex xale yi aussi ci tànk yooyu la ñuy dox actuellement bu ñu bëree ba pare daal. donc xam naa lu jëm ci affaire Casamance bi loolu ci biir waxtaan bi dinañ ci ñëw mais balaa ñuy gën a sori man dama bëggoon ñu xool tuuti ci rétroviseur bi parce que ñu bëri bëgg nañ xam la ban moment la décidé nag mooy lan moo xew ba nga ni tey man damay dem bari ji nekk un lutteur ci ban événement la xew ak ci lan moo la poussé ci loolu. waaw moom événement kon tey un jeune lutteur Balla Gaye 2 euh, boo gisee. tey papaam daan na bëre mais taxul woon tamit aussi mu ne mbër la war a doon aussi comme que papa daa mbëre rek war na mu a doon mbër mais na deret la ci man ma doon jàng école di bërintu boobu maa ngi am ay quatorze ans treize ans yu demee noonu di jàng di bërintu ba bëri bi ëpp ma doole ma bàyyi jàng bi dugg mécanicien aussi tamit c'est la même chose di jàng métier ci yooyu noonu may bëree ci garage yi may bëree ci xam nga fu ma mën si rek bëri affaire bëri neex ma taxul tamit ma ne mbër laa war a doon aussi franchement ñu continuer di continuer ma commencé ma màgg ci nag mais fu ma romb rek ñu xam ne dama ma ne man du ma mbër parce que bëgguma bëri noonu benn grand bu ñaan Zago daan ñëw suñu garage di ñu tegal xaalis ñuy bëri mais saa yu muy bëri rek dafay gis may daan ay jël yu rafet mu jug nag mu topp ma ci nag di ma poussé ci entraînement yi. temps ñu nekk ci chaque jour jàppal bàyyi ba yàlla def tey mois boobu ci laa tàmbalikee ba ni ma nekkee xale ba ni may nekk mag ni waa tàmbali woon bëgg bëri. donc je crois que ñu gis tamit ci sa parcours mu nekk parcours bu exemple parce que tey bu ñu nee euh, ki ñu jàppoon ni mu ëpp technique ci làmb ji Moustapha Guèye Balla daan na ko euh, ki nu jàpp ni moo ëppoon fit ci làmb ji di Baboy Balla daan na ko ki nu jàpp tamit ni moo tax ñu révolution làmb bay fay mbër ay cent millions muy Mohamed Ndao Tyson Balla daan na ko ba agsi ci le roi des arènes bi nga xam ne toogoon na lu yàgg daanuwul Balla tamit daan na ko donc ñu gis ni parcours na exemplaire na est-ce que Balla am na leneen lu nekkaat ci kanam lu mu war a prouver peuple bi lu mu war a prouver ci wàllu sport bi. waaw yaakaar naa ne mbër day am benn moment boo xamante ne li nga war a prouver mooy da nga koy prouver ba mu jeex mooy nga nekk ci tànk li ko dalee nekk mbër bu ndaw ba nekk mbër bu mag ba toog ci doon kàcc gi donc mënaguma mënatuma prouver leneen ndax fi ma àgg nii foofu rek laa mën a àgg mënuma fa passé mënuma fa dépassé. mais exemplaire bi may joxe mooy en tant que jeune en tant que lutteur aussi mooy di def lu baax nekk exemple ci dëkk bi nit ñi di topp suma ginnaaw ma leen ni tey ñu may dugg gis tey may dem di jàppale jeunes te di encourager yi di def la paix en Casamance di dem ci école yi di jàppale xale yi naan leen ñu jàng te góorgóorlu donc en fait loolu mooy exemplaire u Balla Gaye pour l'instant jamono jii